dal te leen jàmm ci li gën a fës ci yëglekaay yi ñu commencé ko sud du côté jéemi del soit ci proposition de loi bi nga a jubbati nag seen règlement di ñu xamal ni jamono ji kenn xamul ban tànk lay assemblée nationale fi mu toll nii di feccee ndax mën nañu comprendre bañ dugalee proposition de loi bi ba léegi si amul benn yëngu-yëngu benn paalaa wax defaguñ ko pour mën a jubbati seen règlement intérieur bi muy mel na xëccoo bii nag am na fu mu tàggee pourtant bu ñu sukkandikoo la waxoon fii ba le 15 juillet laa la wax bu fekkee ne assemblée nationale bii jubbantiwul règlement intérieur am intégré nag déclaration de politique générale du premier ministre kon su boobaa duma dem ci assemblée nationale mën naa créer beneen cadre boo xamante ni fa laay defee sama déclaration de politique générale li ni mel nag yénikaay bi xamal nañu ne waa assemblée nationale jéego yi ñuy teg nag yeex na lool presque ay fan doo nga ci des ñu yegg si le 15 ba léegi si laa la wax voté guñu proposition de loi bi direct news moom ubbi xamante ni bu ñu sukkandikoo ci biir yénikaay bi Sénégal bokkagul ci kuréel gi nga xamante ni réew yi exploité pétrole gi ñi ci bëri nag ca lañ bokk organisation des pays exportateurs de pétrole ndax yéenekaay bi mu ngi xamal ni sunu pétrole gi nga xamante ni commencé nañ ko exploité ca Sangomar te ñu dénkoon ko Woodside Energy di compagnie australienne mu nekk en partenariat ak Petrosen boobu la ñu jàpp ne Sénégal gi nag dafay bokk ci organisation des pays exportateur de pétrole waaye yéenekaay bi mu xamal ni Jeune Afrique bi mu contacté ministère des Sénégalais de l'énergie la ñu ko xamal moo di discussion yi mu ngi continuer ba léegi suñu ministre bii di Birame Souleye Diop moo ngi waxtaan ak kilifa organisation bi ni mel damooy organisation des pays exportateurs de pétrole benn conclusion nag fi mu nii amagul yéenekaay bi dañu xamal ne Sénégal nag pour mu bokk ci membre yi il faut que au moins organisation bi ni mel nag ñoom ñooy voté su boobaa ndax Sénégal bëgg nañ mu bokk ci organisation bi waaw wala déet seen rencontre yii nag ñaari yoon dong lay doon ci at mi ñu koy defee ca réew France pour Sénégal gi bokk ci organisation des pays exportateurs de pétrole l'observateur moom def taxaw ci doxalinu état bu Sénégal bii nga xam ne lu bëri ci ay mission léegi armée bi la koy jox la ko wundu nag yéenekaay bi xamal nañu ne lenn kese la bañ ñi politiser nag yenn ci ay mbir yoo xamante ni ci askan bi la war a jëm yéenekaay bi sabet gi duñu xamal ne suñu njiitu réew dey président Bassirou Diomaye Diakhar Faye na mission ba ñu ko dénk nag ca CEDEAO yoo xamante ni génnoon nañ ci kuréel gi ni mel moom président Bassirou Diomaye Faye dem waxtaani ji fexe la tout nag ba réew yooyu daal di dellusiwaat ci CEDEAO ca wet ga yéenekaay bi dañu xamal ne Youssou Madjiguène Ndour nag moom mujjee nañ ko takkal na gratu docteur honoris causa ca université bu Berkeley source a moom def taxaw seetlu ci langue politique gi ak Cheikh Gaawaan Wade mi jël juróom-ñaari dëggam nag teg ko ci table bi ci rencontre bi nga xamante ni premier ministre Ousmane Sonko doon na ko amal ak marchand ambulant yi nekkoon ci diwaanu Colobane moom Cheikh Gaawaan Wade di xamle ci biir yéenekaay bi ne premier ministre Ousmane Sonko mënta waat na marchand ambulant yi la dajeeloon ca primature man li ma gëm-bëggëm mu di ñam doon recevoir nekkuñu ay marchand ambulant ndax ñun ñi nga xamante ni am nañu association ca Colobane kenn woowuñu de kenn woowuñu kenn invité wuñu kon li ma gëm ba gëm moo di mbir yi mbiru politique la woon ay militant Pastef dong ñoo defoon mobilisation dem wuy ji seen chef de parti premier ministre Ousmane Sonko ca primature bu ñu bëggee nag dëkk bi dox nañu jël wàllum politique nag tegee ko à côté moom Cheikh Gawane Wade di xam ne ci biir yéenekaay bi ne mën na la rencontre bi amoon laa la wax c'est purement politique waa Pastef ñoo fa fees dell te ñoom dong nag nekkuñ ay marchand ambulant nag ca Colobane ne ci biir yéenekaay bi ne directeur cabinet wu ministre Yacine Fall ak Serigne Dieye amul luñ dul def fi mu laa la wax pour fay coow lii ay coow dafa am de ca Colobane ba léegi si ñu wax ak yéen nguurug Sénégal gi bu bëggee réussir secteur informel bii dana ko fulaal bañ koo politiser danañu xam ne tamit ne secteur bi ni mel nekkul ay marchand ambulant dong fa nekk ndax menuisier yi ca la ñu bokk mécaniciens yi ca la ñu bokk ñoom ñëpp ñooy def occupation anarchique waruñ leen a fàtte ñoom ñooñu di lijjanti rek nag ay commerçant bi yi bees yi nag def formation ndax gis nga déguerpissement yi nga xamante ni ndaw ñi dañ cee mer ba futt bombe à retardement la de à tout moment nag mën naa explosé wu ndax jeunesse bi mënuñoo toog di xaar la ñu yoroon kës néew di ci yëngatu ñu xañ leen ko te joxuñ leen leneen kon nag phénomène u déguerpissement yii bu yóbboo suñu autorité yi bees yi def ci très attention yemu ca moom Cheikh Wade ndaxte mu ngi xamalaat premier ministre Ousmane Sonko koy fàttali ne ko nag ab premier ministre nga te bu yóbboo rek lépp looy def tamit daal di leer ndax jeunesse bii nag yaa leen jàngal nu ñuy résister seeni droit kon nag yéen nguuru Sénégal def leen très bi ca wet ga tamit di ñu xamal ne Bougane Gueye Dany di amul lu mu yekkal nguur gu bees gi lépp lu mu amoon ci xemee laa la wax sotti na leen ko dem na sax bay woo ambulance ne kaay leen ngeen sauver Sénégal ndax pour moom Bougane Gueye Dany depuis ba nguur gi ñëwee ci réew meeg léegi def nañu téeméeri fan waaye téeméeri fan yépp ay gént la jeunesse bi di xaru nag ci barsak barsak gi projet yi nga xamante ni lañ leen digoon leen yépp nag ndekete yoo lépp ay gént la yaakaar askan bi yépp a tas Bougane Gueye Dany yemu ca ndaxte nee na tekk tekkaaralu Ousmane Sonko jamono ji li koy wund rek moo di dafa amul solution su amoon solution ci immigration clandestine bi konoon teg nañ ko ci taabal bi ba ndaw ñi mën a toog ci seen réew waaye booy xool le premier juillet bii ñu génn rek ñoo ngi wax lim gu takku ci immigration clandestine lii di symboliser ab échec boo xamante ne nii yaakaar gu tas la nag ci ndaw ñii lii moo tax ñu daal di bëgg a geddaat Sénégal jaar ci barsak barsak gi bugaan gay dana yemu ca ndaxte amul lu mu yekkul tamit Amadou Ba ndax dafa comprendrewul lan moo tax na mënta assumer nag statut chef de l'opposition yaakaar gi askan bi tamit tegoon ci ndoddam pour moom Amadou Ba di président dooleel Khalifa Sall moom nag li muy conseiller nguur gu bees gii surtout ku ci mel ni Ousmane Sonko mooy mu def attention rek wàññi communication bi tey liggéey moom deuxième adjoint au maire Grand Yoff bi li mu xamle mooy problème yi moom mu ngi fi ba léegi si kon nag liggéey la ñu gën a soxla ko ay détails enquête yéeni kaay ne li jaaxal ñëpp kay moo di tekk-tekkaaralu ngand ñu ñu gënoon a yaakaar ne ci opposition bi ñoom ñooy sonal nguur gi ñoom ñëpp na tekk-tekkaaral de moo xam Khalifa Sall Amadou Ba Déthié Fall Pape Djibril Fall Anta Babacar Ngom na ay ancien candidat présidentiel yoo xamante ne nii président Bassirou Diomaye Faye gagné élection yeeg léegi si laa la wax dañu ne tekk rek tekk rek yi yàbbi wu ñu ci doxalinu nguur gi jénikaay bi nag xamal nañu ne fii ak élection législative yi ay relation yu bees nag mën naa judd na ci langue politique gi surtout nag ñeel opposition bi yenn ci ay leader ànd daal dem ci élection législative yi naka noonu tamit la ñuy séentoo waa Yewwi bi ànd ak coalition Diomaye président bi Vox Populi des ci téeméeri fan yi nga xam ne jiwoo président nguur gi yéenekaay bi nag dalal Abdou Latif Coulibaly mu jël juróom-ñaari dëggam teg ko ci table bi ne dafay defal bilan nguuru Bassirou Diomaye Faye gii dem sax bay xamle ne téeméeri fan yi day ay téeméeri fan yu promesse la promesse yoo xamante ni kenn te ko nag li ñuy def fi mu toll doon wax sa fay de man sax mën naa jàpp ne téeméeri fan yuñ defagum def nañ ci ñaar téeméeri acte yoo xamante ni bokkut ak la ñu askan bi yemu ca moom Abdou Latif Coulibaly jàpp na ne fi mu toll nii sénégalais yi dañuy jaawale sax président Bassirou Diomaye Faye ak Ousmane Sonko waaye bu fekkee ne président bi jël moom amul benn problème ñu ne jomaay mooy sonko sonko mooy jomaay waaye nag am na yenn yoo xamante ne nii kenn rek moo ci mën a jël responsabilité am il faut que su boobaa kenn ki reculer bàyyi kenn ki mu daal di doxal dem na tamit bay xamal premier ministre Ousmane Sonko ne il faut que mu comprendre ne moom du président de la république nay yem ci li nga xamante ni moo di responsabilité am tey nëbbatu wàññi communication Abdou Latif Coulibaly yamu ca xamal na tamit nguurug Sénégal gii ne il faut que bàyyi xel presse bi moom nan na ne kuréelu presse yi nag dañoo war a fay impôt waaye xanaa balaa ngay fay impôt daal fay nag say employé bëri ci entreprise yoo xamante ni dañoo nekk ci ay jafe-jafe pour mën a fay seeni salaire kon nag responsabilité état bu Sénégal mooy jàppale leen ca wet gi yéenekaay bi ñu xamal ne parti socialiste de ñoom ñoo sargal Ousmane Tanor bi am nañ ci sax yeneen i initiative yoo xamante ni bëgg nañ ko cee amal bokk seen salle de congrès bii nekk ca seen siège ba duppee ko Ousmane waxtaan tamit ci yenn ci ay perspectives seen parti bi ak yenn ci ay activités yoo xamante ni nam nañ koo def ci bés yi di ñëw ba tey yéenekaay bi des ci kàddu Bougane Gueye Dany mu jël ay kàddu nag jagleel ko premier ministre Ousmane Sonko ñaaw ñaawlu lool tekk tekkaaralam ci ndawi Sénégal yii di ñàkk seen bakkan ci barsaak barsaak gi mu jàpp ne noppek Ousmane Sonko bii du dara lu dul preuve d'échec rek preuve échec la di symbole tamit ci yaakaar bu tas ci ndaw ñi lii doo nga tax nag ndaw ñi dem ci barsaak barsaak gi te bu ñuy xool ba léegi sii ni Ousmane Sonko waxul ci drame bi nga xamante nii am na ci yoonu Mauritanie gi nga xamante ni lu mu néew néew ñoo ngi wax ne juróom-ñetti fukki ndaw ak juróom-ñeent ñàkk nañ ci seen bakkan nguur gi na tekk tekkaaral rek lii bugaan gay dañu ñaawlu ko lool ca wet ga tamit Amadou Ba moom wax na ci xalaatam jàpp na da nguurug Sénégal gi dañoo war a créer ay conditions yuy tax ndaw ñi nag daal di am yaakaar ci réew mi toog jàpp ci doxalinu réew mi waaye suñu leen bàyyee nii te jàppale leen dimbale ñu leen seen yaakaar dina tas te mooy indi rek nag barsaak barsaak gi en tout cas ci barsaak barsaak gi yéenekaay bi xamal nañu ne assises yi ñu génn nag lañ proposé président de la république mooy ñu jéem a criminaliser képp koo xamante ni yaay jël ndaw ñi di leen yóbbu ci barsaak barsaak gi moo xam ñiy dem la moo xam ñi leen di yóbbu ñu criminaliser rek dossier yooyu xanaa soo xamee ne boo yóbbee ay ndaw ci barsaak barsaak gi ca kaso ba nga jëm te yow miy demee tamit bu ñu la jàppee ci kaso bi nga jëm xanaa su boobaa dinañu wàññi dem ci barsaak barsaak gi mbokk konti leen a abonné ka bàyyi xel seen seen YouTube bi di Mourchid TV tey gën a bàyyi xel télévision bi ngir ñu gën a mën a mottali seen yaakaar ñu yéen ak jàmm suba ak jàmm incha allah